ñaareel ëpp naa def ñaar ñaareel ëpp naa def Fadam. mais naa la bàyyi naa da ngay entraîné. macha allah seetaan bay daax mais Fadam Gris 2 faa affaire. waaw. Fadam mu 2 mënul bëgg professionnel ba pare bu duggee ci live bi caméra am di lëndëm. ah wax lu mu wax dégg nañ ko mais il faut caméra am bi di leer tamit. waaw mooy yoon quoi tamit xam nga loolu nag xam nga nag Gris 2 moom kenn moom. waaw non caméra am bi muy leer mënul ñëw di pare di wax ni di tëkku mbëri ba pare caméra bi di lëndëm. ah du yoon de du yoon de. loolu la ci bàyyi fanam nag bu ma lay may bu ndaw mooy. waaw yow miy wër coow. waaw fii ak samedi. waaw. di ngay dégg coow loo xamante ne mosoo ko dégg ci làmb. te xam nga bañ combat laay wax wasalaam. ah doo ñëw a dem bàyyi. ah non daal képp kuy amateur. fii ak samedi Fadam. Hmm. képp kuy amateur soxol xol dina sedd. alaaji hmm? Fadam fii ak samedi li doon werante ay weer di ko werante ay at di ko werante lu baree baree bare fii ak samedi incha allahu rabi am na lu doy waar luy waade am ci làmb alaaji Fadam. كيف كوي اماتير تخول دينا سيد ان شاء الله ربي مي كوم نك واخ بي واخ بي فمو تولني باختول باسكو لو واخ مو ياكو واو واو واو مي جونجو لا رك جونجو دينا بروم خيل نك مون نان واخ نانتي دي واخ خمغا نانتي غا واو جونجو دينا بروم خيل جونجو دينا بروم خيل جونجو دينا بروم خيل واي گمناني صاح ماي واخ ماي واخ بن سوربريز مي اماتير دي دن ام نياري سوربريز يو ري ري ري يو خم سن خول دينا سي سيد تروب يدمنان فياسم fii ak samedi ñaari surprise am allah di dina sedd guy. mel ni dafa beneen combat bu bëgg a taxaw. déet déet déet <laughs> dina am ñaari surprise yoo xamante ne. Mm-hmm. sa xol bi dina sedd guy guy guy allah di fanam ñaar yoo xamante ne quasiment fu mu toll nii à quatre-vingt-dix pour cent mot na. benn bi ci Modou Lo Ama Baldé la. Hmm? waaw benn bi ci Modou Lo Ama Baldé la. beneen bi. génnul parcelle waaw ah, benn bi ci Modou Lo Ama Baldé la beneen bi génnul parcelle alaaji Fadam jàpp ni daal képp kuy amateur làmb semaine bii di nga nekk semaine boo xam di nga ci kontaan trop trop trop waaw hmm? ah, di nga gis image yoo xamante ne yu doy waar la loo mus loo lu loo xamante ne daal a ah, lu amateur yi doon jooy daal fu mu toll ni jeex na mais man nag mënu gu ma ko annoncé parce que tey amoon nu mu demee tey amoon na nu mu doon demee ñu mun ko annoncé tey mais daanaka tey mun nañ ne soixante dix pour cent taxaw na ci suba ci matin bi incha allah le quatre vingt quinze pour cent yi di mot. Mhm. bu quatre vingt quinze pour cent yi motee nag alaaji fadam képp kuy amateur xam naa yaay nikk kontaan di nga enchaîné di fukki fan di live. non man dama bëgg coow dama bëgg coow. non non coow fadam coow di ci doyal. barki alxuraan di nga doyal ci coow li di nga ci doyal ba ne ñëw ñëw ne yenn leen ma coow li. man li ma jaaxal li ma jaaxal li ma jaaxal su ma su ma soo demee partenaire romb mu ne mu ne la mu ne la mu ne la coowal neex na léeg-léeg ñu live ba pare Ama Baldé envoyé le message. <laughs> non ñoom ñu ngi topp lépp euh, fu mu toll nii coow coolee fi ne mais amaa Baldé ak Modou Lo dara du leen ci live balaa nga ko doon xam tey nga wax noo war ta wax. boo waxee loo warta wax ci live bi ci ngay xam ni Ama Baldé mere na la wala Modou Lo mere na la mais loo ci mënti dégg alaaji Fadam yow mi nga xam da ngay coow di ut ay live yu neex ci semaine bii nii di nga nekk semaine boo xamante ne di nga ci doyal ñaari coowal làmb yoo xamante ne fu mu toll ni benn bi mu naal ni ci Modou Lo Ama Baldé la benn bi ci Modou Lo Ama Baldé la dina am coow lu rëy coow lu rëy rëy rëy alaaji Fadam waaw hmm? coow loo xam xamante ni foo natt weesu loolu dina ci am ci semaine bi incha allahu rabi. ba dafa mel ni yaa ngi bëgg yaa ngi yaa ngi parce que coow li laa bëgg coow li bëgguma mu fekk ma ma amee suukar. <laughs> mais mais mais ba làmb jëm nii fii làmb jëm. waaw diggante. Mm-hmm. diggante novembre décembre. Mm-hmm. ak actualité bu noonu mu tegloo noonu ci làmb am na doole ah. non non diggante novembre décembre Fadam il faut lépp dajaloo fa parce que gars yi du ñu bëgg yegg ci élection yi moo tax lamb lu ci condensé wu diggante novembre décembre combat yu ndaw yi sax ñoo dàq combat yu mag yi. Mm-hmm. Mm-hmm. combat yu ndaw mag combat yu ndaw yi ñoo dàq sax combat yu mag yi mais combat yu mag yi dañu ëpp coow rek ba léegi waxaguñu ci Siteu Lac de Guiers numéro 2. Mm-hmm. te ba léegi boo xoolee Siteu Lac de Guiers 2 li ciy nelaw bari na. mais ba léegi boo xoolee.

nga fi may waxee xam nga boo xoolee ba léegi yow sa début combat bi dafa am ay jàngat yu neex yoo ci doon def ay débat yu neex yoo spécialiste yi. Mm-hmm. ay débat yu am solo yoo xam yaa ngi ko ci doon def. Mm-hmm. mais léegi boo xoolee débat bi dafa yóbbu trop ci ndax Ama Baldé dina bëre wala du bëre. Mm-hmm. te man ma gëm ni man Ibrahima Faye Beuz ma gëm ni Ama Baldé dafa nekk di nelaw nelawloo muutloo jamono ji dama jàpp ni Ama Ama Baldé dafa nekk di nelawal Modou parce que man am na information ni que amaa Baldé ak Bébé Diène ñu ngi contact contact yu metti te Ama Baldé amul fenn bu mu génnee ba weddi ba weddi tey blessure am buñ koy jiiñ wala feebar buñ koy jiiñ kon ma gëm ni fu mu toll nii jamono juñ toll nii Ama Baldé ngi ci làmb ji te daa bëgg nelawal Modou Lo moo tax benn réaction defagu ko léegi nag buñ demee ba ci dernière ligne droite bi Ama balle day def nu Boy Niang defon balle gay dernière ligne droite bi da nga gis ci open press bi nga gis Boy Niang bu décidé Boy Niang bu soxok Boy Niang bu sadik Boy Niang bo xamantene mayewul dara pour dan balle gay lol nga na gis ci Ama Baldé dernier ligne droite bi du ci may dara mutlu motax manela dernier face à face Ama mutlu face à face bu bu dangereux lay ala di faram. ndax wax ko information bi nga wax ci Ama Mm-hmm. tey rek jotaat naa ci benn bu bees tàq tey. Mm-hmm. Mm-hmm. ba muy yéegee wax fa Ama Baldé di contacté. mënuma mais jàpp ni jàpp ni Alaaji Fadam fu mu toll nii Ama Baldé bu doon bu làmb ji Ama daf ci def code Ama daf ci def code.

bu ñëwee rek nga xam ni mbër mi ñëw na moo tax ma ci dernière semaine bi nii dernière ñaari semaine trois semaine ñu mujj ci combat bi alaaji Fadam. Hmm. di nga wax ba doyal. du nekkati combat bi dina am wal du am mais boobaa analyse yi mooy doy waar. parce que bés bu amaa dëggalee boppam Modou Lo dëggal boppam ñoom ñaar làmb ji dina nekk làmb ju doy waar. làmb ju metti ju doy waar ju metti maa ngi koy nag alerter naa ko Luc ne ko dimbali ñu pour le dernier face à face nga jël sa disposition yëpp yëpp yëpp yëpp. te bon man Luc Nicolaï mi ma gis fu mu tool nii Alaaji Fadam Luc soobu na ci kombaa bi. dégguma ma ne Luc soobu na ci combat bu baax a baax a baax a baax a baax. moment yi may waxee yoon nii Luc ku ne xam ne ni moom Bombardier ñoo yem guddi guddi mbuur la ñuy wax mais moment yi may waxee ni Luc a ngi dakaar ay valises am yëpp teg na ko Dakar fu mu toog nii. ndax man damay dégg benn information boo xam ne ci ñi ñuy communiquer ci côté parcelle dañ naan du yàqoo ci am Ama Baldé du yàqoo ci Modou dañuy ragal mu yàqoo ci promoteur kon boo ne li jël na engagement am rek. kon déggoo ma ne la ma ne tey man man maa man maa fay billets yi billets yi man la ñu yónnee xaalis ma jënd billet wu làmb ci bi dina génn del xool affiche bi génn dina génn suba affiche bu alhamdulilah affiche bi la neexee mën naa la ko may nii sax. Eh, waaw waaw ma may la affiche bi yee. loolu dama ci laal xaal loolu dama ci laal xaal. xaaral ma la affiche bi yee. ngi nii. machine bi. juillet yaa ngoog Fadam. le cinq novembre. Fadam mën nga lire. waaw. waaw avisu billet yaa ngi nii avisu billet dina génn suba incha allah. donc bu avisu billet yi génnee Fadam. ak eh. coow bu waa di am bi ma lay wax ni mooy waa di am ci semaine bi. coow loolu bu amee ba noppi lan moo fi lan moo ci dese ci Fadam.

Mm-hmm. analyse nañ benn situation boo xamante ne nangul naa ko itam quoi Fadam lool dafa ma taxaw wax ko parce que dafa ma dafa ma soxal. lu ñu fay Modou loo fay ko Ama Balde. Mm-hmm. fayuñ ko ñoom daju. fayuñ ko ñoom ay Aya Nakamura yuy ñëw di def si concert Sénégal. Mm-hmm. te ñoom dañuy ñëw def si concert Sénégal billet bi bu gën a ndaw ñu koy jaayee quinze mille francs. kon combat Modou Lo Ama Balde pour des raisons de sécurité. pour des raisons de sécurité làmb jooju billet ba warta cher billet boobu amateur yi nga gëj a gis ci làmb ay 97 maa ngi seen sama grand jama meng nga xamante ne amateur yu yàgg lañ grand yooyu noonu dañu war a ñëwaat ci làmb ji seen xel dafa war a dal parce que bii ñoo war a am nu mu mel pour gars yi mun a ñëw ca làmb ji ak xel mu dal bu ko defee ku ñëw ci làmb ji am sécurité stade bi set wecc policiers yi nekk fa gendarme yi nekk fa nga gaare sa oto si jàmm ñibbi waat ci jàmm làmb ji neex ci arène nationale incha allahu rabbi am naa yaakaar ni sponsor bu mag dina dugg si boo xamante ne cantine yu ñu defoon ci arène nationale cantine yi dina ko ubbi cantine dinañ ko ubbi cantine yooyu nga xam ne dañ ko defoon arène nationale pour di ci jaay lekk ñu ubbi ko lekk yu sell macha allah jaaykatu lekk yi ñu kaasa leen teg ci condition yu am solo géew bi cambal càmbal yi fi doon am mu mu deñ parce que Modou Lo Ama Baldé moo war a dekki làmb et maa ngi lay annoncé benn fadam combat Modou Ama Baldé day leer nañ. dégguma. combat Modou Lo day leer nañ. jël na ay disposition am démb président Bira waxtaan naa ak moom ba noppi CNG jël na ay disposition pour Modou Lo Ama ñu tàmbale ci VAR matériel bi Canada fii lañ ko war a jëndee yónnee ko Sénégal VAR day tàmbali ci làmb kenn du ne leer naag leeroo écran bi rek doyul Sa Thiès dëgg-dëgg écran la ñu naan daan na ko da Modou Lo Ama Baldé VAR démb laa jokkoo président Bira Sène une heure temps au téléphone ñoom réunion nañu ba pare maa ngi ut fu mu toll ni matériel yi fu mu toll nii pour ñu yónnee ko Sénégal une semaine avant combat bi VAR bi taxaw ñu testé ko ci benn combat deuxième Modou Lo Ama bale day leer nañ bu lënd lëndëmee bi ji xool VAR bi teg ko ci écran bi ñëpp di ko gis VAR. Modou Lo Ama oh. Baldé nuñ ko xaar cinq ans muy lëndëm ci ay quatre appuis ki trois appuis fadam xalaatuñu ko xalaatuñu ko VAR VAR VAR fadam day leer nañ nañ nañ

ba tuusum Ama Baldé kuñ ko jaay junni. le mhm. retour de Modou Lo roi des arènes tuusum ak Moussa Yacine Mbaye kuñ ko jaay junni wàccoon nañu mhm. ko. Mhm. pour ñu jaay ticket bi gën a ndaw ñaari junni bokk na ci sécurité stade bi ndax tey jii ñi gën a am responsable ñu koy ñëw jënd te buñ ko jëndee làmb ji leen indi te benn bruit du leen fay indi. waaye li ma jaaxal ba jaaxal ma rek bës mooy la retour de Modou Lo arène nationale. tax Modou Lo dafa xiif Ama Baldé ci communication. Ama am lu mu dencal Modou loo xamante ne mu ngi ko war a yekk ci dernière ligne droite bi. c'est que en fait est-ce que ku bëgg xam man ci sama jàngat quoi xam nga mbër da koy jàng di ko topp. Mhm, mhm. bëgg xam Ama Baldé lu muy indil Modou Lo da ngay seetaani Modou indil ama Sène seetaani Eumeu Sène li mu indil Bombardier seetaani Bombardier li mu indil Balla Gaye seetaani Balla Gaye 2 li mu indil Yékini seetaani Yaxya Jóob Yékini lu mu indil Bombardier seetaani Bombardier lu mu indiloon Mohamed ndaw Tyson seetaani Mohamed Ndao Tyson lu mu indiloon Tubaabu Joor Alaaji Fadam seetaani Tubaabu Joor lu mu indiloon Manga 2 Alaaji Fadam déglu bu baax li ma la wax combat yi ma limal yëpp ay combat royal la. war ayuma la limal yëpp combat yooyu noonu bës boobu roi des arènes da cee daanu. analyser bu baax a baax a baax ku jël si roi des arènes bi lan la indi ba ba ba daan roi des arènes bi. dafa am benn jikko boo ci gis ci bés boobu toujours muy muy feeñ ci ku jël si ndam li. jàppal ni Ama Baldé day topp làmb te Ama boo xoolee ni mu làmbee début ba fin am na li nga xamante ne tey. moom la fas yéene def diggante moom Modou tey moom la fas yéene indi diggante moom Modou pour jël suñu waa des bi mais bu ko ko Modou Lo yombalalee yàlla naa dee. Fadam Modou Lo bu ko yombalalee Ama Baldé Fadam nga xam ni maanaam Modou Lo nangu na ñëpp daan ko ci àddina ba mu des Ama Baldé. ba liy dëggal li nga wax nii. Mm-hmm. Ama Baldé réer na Ndakaaru mër. Mm-hmm. Ama Balde ñi dëkk Pikine pour ñu teg ko sax problème la léegi. Mhm. Mhm. ay quelques nit yu ñu yu ñu ko ràññee ci moom ñoo koy gis biir Pikine. Mhm. te Modou mi ma gis. benn xabtaan lay sol mel ni ancien talibé yi njëkk yéen. Ya. bëggul dara lu entraînement lu ko waay di wax lu lu entraînement. gëm ko. waaye pour bi dafa mel ni dafa am mu def ci Ama Balde. Mm-hmm. Mm-hmm. communication bu tàng jër boobu buur waxoon. ñi naan mm-hmm. toj ñi naan nangam. ca lañ ko ñàkkee. dëgg la dëgg la dëgg ko ñàkkee non non Fadam man moom leen laa lay xamal nañ ñaan yàlla ndax nag cat nag mun na jóge fu cat moom mun naa amee fu ne alaaji Fadam. yàlla nañu ci yàlla Fadam mun na amee fu ndax mbër mun naa préparer combat ba mu des une semaine sax nga am blessure blessure moom ci suñu borom lay jóge kenn mun ci dara professionnel des fois dina ci am mais des fois nga am loo xamante ni kenn mun ci dara mais alaaj Fadam moment yi ñu toll ñii ci disposition yu ñaari mbër yi toll ñaari mbër yi ñu ngi toll ci disposition bu méttee métti métti pour dem bëri ji le cinq novembre. te ñaari mbër yi bu ñu jàkkaarloowee le 5 novembre alaaji Fadam lenn moom dinaa la ko xamal. Mm-hmm. ñaari mbër bu ñu jàkkaarloowee le 5 novembre. Hmm. balaa muy métti ci ñaari mbër yi ci góoru sok boo mu nga dugal léegi ci ñoom lay gën a métti ak ci ñoom Malaw Seras. ndax parce que amul Ama Baldé dina ànd ak sanguinaire yoo xamante ne du ñu mës a nangu dara cof Ama Baldé ñooñu pare nañ pour teg seen bakkan ci bés boobu waaye bës boobu noonu. Franc dina ko jaayante góoru sok dina ko jaayante Mbacke fay dina ko jaayante Dame seen ak ñoom ñëpp dinañ ci jaayante teg ci seen bakkan. Euh, ñoom Papis ay ñoom Serigne Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi Alaaji Fadam toll na foo xamante ne fu mu toll nii ma lay wax semaine bii laa la wax semaine bii Fadam di nga coow ba semaine bii ma lay wax incha allahu rabbi bu yàlla defee jàmm dama ne Luc Nicolaï gàddu na ay bagaasam fu mu toll nii mbuur deseetu fa valise. mbuur deseetu fa valise gàddu na ay bagaasam yegsi na ndakaaru teg na ko fu mu toll nii tey moom a yee moo ma yee man ay sept heures du matin la ma woo démb moo ma yee six heures du matin la ma woo. démb si démb six heures du matin la ma woo tey sept heures du matin la ma woo Alaaji Fadam. bés bés boobu bu ñu demee ba ñëwee le le le quatre novembre. Mhm, mhm. ah Alaaji Fadam Luc Nicolaï yegg si na dafa bëgg a <laughs> bëgg a turam dafa bëgg a turam xoolal bi boo seetee booy laay ba ci yàgg rek nga seen ku weex rek mooma <laughs> waaw mooma waaw tooñ ko nag parce que moom moo waroon def annonce bii mais wax naa ko ndax live bay neex a ñàkk wane wane naa affiche u bii wane naa affiche u bii parce que niveau combat bi moo tol noonu mhm. amateur yi fu mu il faut ñu yeewu mais Fadam Luc na wax lu muy waajal amateur yi fii ak semaine bi na ko wax. waaw mais dafa jot nag léegi nag dafa jot nag gars yi sax. na wax na wax lu muy waajal amateur yi Fadam comme yow yaay wër coow na ko wax. ah tamit ndax nit ñi dañ ko nam nit ñi dañ ko nam. na ko na ko wax. na wax lu muy waajal amateur yi ci semaine bi. ah amateur yi nag amateur yi nag wax dëgg yàlla ba te liñ gën a bëgg buzz mooy liñ gën a xaar mooy ban xeetu spectacle la ñuy xaar ci diggante Ama Baldé Modou Lô no man Ala bal di modlo man wax deug yalla man sécurité laj dak laj soxla soxla wu ma ci spectacle spectacle moom muñ ci ñak mais man sécurité laj soxla soxla wu ma ci spectacle Alaaji Fadam Alaaji Fadam lamb duñu xaar juróomi ak juróom-ñaari at wurul sax ñu ci tal ay fumigène muy dal ben mbeur bi <laughs> non dañu xam di dëgg Alaaji Fadam spectacle ba yang koy am bu arbitre sifflé Alaaji Fadam dama ne la lamb jo xamantene dafa am var dafa wara leer

ay jëmi kii bi ñu wërale ci sécurité. ay jëmi billet yi sax dix mille lay doon billet non làmb ji nag naa la xamal dara alaaji Fadam. Ah. làmb ji como du ci dem Moussa Mbodj du ci dem. non non xale yëpp toog kër gi xaar toog kër gi xaar ñu seetaani làmb ji ci ñëwaat. may amateur yi ñu waxtaane ko. waaw na may nañ may amateur yi ñu dem ca làmb ji. man de naa la wax lii ma lay wax nga mm. mm-hmm. le le deux. Mm-hmm. Luc Nicolaï dina def annonce ne hmm. billet dix mille jeex hein waaw parce que tamit parce que tamit mom mom tamit euh, erreur bi mom moy bi yi il faut ñu mun ko réserver il faut ñu mëna am numéro bu ñuy réserver bi yi. mais ndax. nee la ñu foto bi. wala wala wala bu fekkee ne sax li ma gis dafa mel gis na ci edeka ki souf waaw alaaji Fadam naa naan nga edeka mu ngi ci Kaapay mu ngi ci. campagne bu kii mais lan moo tax ci seen seen seen mu yi. mënuñu faa oh. yóbbu bii jaay ko foofu direct rek benn yoon mu jeex. waaw loolu bii dinañ ko jaay ci EDK yi mais ban dat lañ koy jaaye loolu mbiram la. mais le deux rek ndax bés bu bëgguñu kenn ku rang. waaw kuy rang da ngaa moom daal ku ci jënd bii itam na ko jëndee ci guichet. wala nga jëndee ko ci point yi ñu wax ni fa lañ koy jaay bii trafiquant wóorul ci làmb ji. Eh, eh. làmb ji bii trafiquant wóoru ci. ngaa ñëw ba ci bunt bi xam Mbaye Jacques Diop buy liggéeyu ministère <laughs> mu ne làmb ji kenn waru ko tëgg arène nationale ñu ne ko tax mu mais supporter Modou bu ñëwee midi di leen fekk supporter Ama Baldé yi feesal làmb ji mu ne làmb ji buñ ko xam nga tey jii lii problème buzz lii problème waaw lii problème bi mooy dix mille bii ngi ñu ne dañuy jaay bee bi gën a ndaw ci diggante Ama Baldé Modou Lo mhm. bu bës baa di nga gis amateur bu jëndaat bee cinquante mille trois mille pour mën a am billet man maa la ko wax. du leer ni ama Ama Baldé Modou Lô du caaxaan bës Ama Baldé guddi yi ñu toll nii guddi yi ñu toll nii. Mhm. amul ku ko mën a teg wala ko mhm. Mhm. Ama Baldé mafia bi gën senegal mag Sénégal dar guddi yi toll te loolu man maa koy man maa wax. mafia lalak, la mafia bi gën senegal. mag Sénégal. ci wàllu Ama Ama Balde mu ngi contact maa ngi dégg ñu bëri ñu ngi naan Modou Lo moo ëpp jàppale Ama Balde attention li ma gis man li ma gis. Mhm. Modou am na jàppale lool waaye am na mafia bu dugg ci Ama Balde. te mafia mhm. bu combat jaral na leen lu ne. Medjo mi nga mhm. xam nii rek gis naa ko mu nga pare nii sànq rek woote na dugg ci live bi ndax daa seetaan live Ama Balde Modou Lo lijjanti numéro bi woote. pour dugg ci live bi. waaye lii ma la wax na ko bàyyi xel ba dix Mhm. amateur dinañ am problème pour teg ko bët. ndax day teel jeex day teel a waa ji am benn waaye ci commentaire yi mu ne vingt mille la ñu waroon jaayee bu gën tuuti mais billet moom defar nañ ko ba pare billet yi moom kenn mënatu ko changé. ma wanaat la rek affaire bi allah ji fa dem. laa ilaaha illallah. affaire bi baax ah, dix mille vingt cinq dix mille ñaata la. dix mille vert ak jaune vingt cinq mille tribune amateur rouge yi cinquante mille mooy annexe loge bi loge officielle mooy deux cent mille mais loge officielle. gëm naa ni ku teelul woote du ko am parce que Luc Nicolaï boo moytuwul loolu sponsor yi ak gars yi ñoo koy loge boobu moom bu yeboo gars yi teel a woote. <laughs> mais la parce que xam nga daal laaj photo may wax loolu xam nga man damay tàmm wax gars yi jàpp ni damay comédie wala damay neexal ak yu mel noonu. c'est parce que niveau d'information yi ñoo dul yem. alaaji Fadam yow da ngay toll ci information foo xamante ne da ngay gis coow li muy ñëw nii dama ne la tey laa la wax. coow li ma sant muy ñëw nii li bees li ma gis mu war a am ci semaine bii alaa di fanam li bees li ma gis <laughs> alaa fanam lii lan la alaa fanam waa lu muy yëg ci loxoom ñaari minute laay wax ñi naan du am sëriñ seeg yooyu gis nga li <laughs> mais, <laughs> mais Lick, Lick. Quel dollar là, laaj pour. kenn du la. dama ne bus la tech bus. bus la tech place de l'indépendance. waaw. sëriñ bu ñu ñëw ànd ak bëkk néegam billet dessert. mais léegi ba léegi mu ngi ci live bi léegi. génn du waxaat. mooy Birima du waxaat loolu mooy Birima ba ci benn kàddu ga. <laughs> du waxaat mais leen daal laa la xamal fu mu toll nii ay bagages am nga ndakaaru. Hmm? moment yi may waxee yooyu mu ngi noonu ndakaaru nee na ma Ibrahima du ma ndakaaru fii ak combat ba jeexul. laa ilaaha illallaah. waaw waaw waaw waaw. léegi nag bon promoteur bu toll nii lim ñu ko laay nag. ak crédibilité bu mu am ci wàllum làmb kuy tëgg làmb depuis quatre-vingt-dix-neuf bu yëkkatee ay kàddu ba ma ne ñeme dugg ci live wax yaakaar naa ni loolu ah fu toll ni wax dëgg yàlla ba ñu gis leneen mais xel war naa mun a dal euh, alaaji Fadam. man de leen rek moo ma jaaxal bës. Mhm. Mhm. leen mhm. man làmb daanante ba man daanante ba. nekkul man man kaar. Uhum. Uhum. billaahi uhum. barki sëriñ Babacar Si ma gisee Modou Lo Ama Baldé wax la koy daan hm? mu la gisee ci signature wax la koy daan xam nga lu bu dugg si fanam mënoo liir nag il faut ma lay liiral kii kan la xam fusion dafa xew ah. ca dog ma bàyyi noonu xam fusion dafa xew te man dama sentir benn affaire Fadam. waaw. Luc da doon nelaw. waaw. mais Baye Ndiaye Baye Ndiaye da ko da yee. xam nga yenn saa yi nga yenn saa yi nga nekk ancien footballeur. waaw. mais boo jékki-jékki toog banc de touche ba ci yaa gis sa benn fils rek téye contrôle de balle dóor lukaan dugg da ngay àbb godaas yi pour dugg football. waaw Baye Ndiaye dafa yee dafa yeewaat Right. If not,